kanamam gi mel ni dara bu hôtel bët bu set mu changé ko yéen kii da ngeen koy xool rek xam ne jom nekkul ci moom Fatoumata Ndiaye Fouta Tampico taxul may wax nag man déedéet taxul ma def sa video bi de yéen ñi may envoyé vidéo am depuis sa matin bi mu taalee live ba léegi naan ma xanaa yëgoo ne Fatoumata Ndiaye Fouta Tampico léegi nee na ci Sonko la bokk nee na ci ñun la far mu ngi live nee na waa Pastef yéen a am jom ngeen jënd li laay waru soole jàpp leen ci rek. kuy dund te sa présence kenn yëgu ko soo dee kenn du la jooy kii bi mu bokkutee ci yoon bi yàqu fi dara yàqu fi dara kon su ñëwee bokk teg leen ko ci kër gi mu mel ni seet bu dul jël njël maanaam même bu nekkee dafa ñëw bokk te muy dëgg ci moom boole leen ko teg leen ko mu tege rek ngeen di ko xool Faatumata Njaay suuf te tàmpe bu ngeen bëggee dégg dëgg yàqu fi defaru fi li lay wuro sóoli bu leen tardé ci tardé wu mukk ci genre bi ñaan naa